Fallou Ndiaye moo ko tëggoon fils de bi mu fi mujj diggante ak xale boobu di général bu Malikoon Assane Ndiaye moo ko tëggoon waaye le géant de Mbor mi ngi nii doomu Cambérène bi doomu parcelle bi dañ koy bàyyi mu nuyu ak ñuy chiffre maa ngi lay siyaar di la bëgge eh maa lay sant maa lay siyaar bu baax maa sant yàlla bu baax di julli ci Yonent bi sant sama ñaari waajur di sant ahlu bayti rasul bépp di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul ak njabootam gépp di sant bépp tarixa diine bu fi nekk rek ak bépp kilifa diine maa lay sant bu baax baax sant waa koñ bu baax a baax su sama dëkkandoo ndooy suñuy bëri ñëpp ay sonn gayaan koñ bi kenn am foo jaar baare beeg tëj koñ beeg yooyu ay coono ñu leen jéeglu baax si loolu. Mhm. foo toll ci wàccaay bi bis bi ñëw na suur si mooy sept jours rek moo ci des mu combat bi. ñu ñëw ñu ngi ci dernier réglage incha allah rabbi yàlla may tarak fekk rek balaa fay incha allah. pare nga. non man maa ngi pare ay la ay la weer ba de kon nii nii pare nga nii. man yàgg naa pare man du sax combat mooy damay entraînement man sama sport la su ma nekkee Sénégal ak su ma nekkee feneen damay entraîné su ma demee États-Unis chaque jour su ma yeewoo damay entraînement su ma demee France su ma yeewoo damay entraîné waaw. lu waral nga jël Fils de Balla soit bi yow la wala moom moo bëggoon bëre wala promoteur ñoo ko bëgg. Ah, yi ñoo ko bëgg ak moom bëgg na ko. yow bëgg. mu bëreeg moom bëgg moo tax ma war a bëreeg moom su ma ko bëggoon du ma bëreeg moom. lu tax nga jël ko. dama ko war a jël dama gis mu def ay performance yu baax rek. Hmm. daan ay champion nag ay ñoom général bu Malika daan fi nii rek Tapha Leer bëri ay champion yu bëri yoo xam ne def na fi jaloore daal def na dara def na dara xam def dara. moom làmb moom comme ni ma la rek làmb ak politique ñooy boo daanoo ñu ne kii dara. làmb ak lan ñooy am. ak politique boo nekkee président ci réew mi. waaw dëgg la après booy bëgg wàcc naan xamoo dara làmb. Mhm. soo daanee mbër ci làmb ñaari mbër rek la daan naan kii am na lu nekk ci moom wala bàyyi na wala nangam ah moo tax carrément boo ko amee. bu yaakaar ne benn combat la de il faut nga entraînement sérieusement lekk sérieusement xam li ngay lekk xam nga li ngay entraînement xam heure bi nga war a tëdd. xam nga ko. waaw ah, loolu xam naa ko instant bi xam nañ ko. moom nee na yàgg ngeen dajee ay diin boobu sax xamutoon na dina bëri sax ngeen dajee ngaan ko yow moom booy da nga bëgg diin di ko conseil quoi loolu da nga koy dëggal yow. moom da nga ko laaj ban année la bëre ba ba man naa ko moom maa ngi yàgg nañu ne bëre man dama ko njëkk a bëre. moom la est ce que ñëwul ay 2012 yooyu noonu. 2012 man 2012 laa ñëw. non yow 2011 nga ñëw Arena Tour. waaw kon kay jeex na ay weer ak at loolu day dara. kon moom moo xam ne moom bo mel na ku am ku am vingt et un comme Talfa wala Adama bool <laughs> moom du xale yooyu boo ko jëmm la na bàyyi yooyu ku yor jabare ki doom muy wax ay wax ah, saa yi dañuy dugg ci ay gaam yoo xam ne mooy loolu quoi. mais daa daa ngeen dajee diir nga xëy nga koy conseil naan ko da nga bëgg a diir loolu moom yow weddi woo ko. mosuma ko conseil nga bëgg diir damaa wax savaa ci loolu nekk na xam yaa ngi wàcc loolu rek mooy ma ko conseil waaw. nee na yàgg nga ko bàyyi xel de. man waxuma ko moom de. Balla Gaye ak Sa Thiès mosuma leen bàyyi xel ba koy bàyyi xel moom ak la dëgg yàlla. nee ay patron ci làmb. waaw te ñooñu ay champion lañ dama leen nangu seen champion mais mosuma leen bàyyi xel bàyyi xel mooy ki xam ne da nga yaakaar ni boo bëree moom mënoo ko daan loolu mooy leer nga koo ci bëree mën nga ko daan kon la koy bàyyi xel. moom dafa gëm ne nag yow mënoo ko daan. waaw loolu gëm-gëmam la gis nit chaque jour soo amee combat wala adversaire da ngay yàqee ni kii mu bëree mënoo ko daan mais yëpp ñi mu ñoo teg ci moom. waaw kon kuy teg ci góor la teg non loolu jërul wax comme say mënoo teg da nga ko ñemee teg fenn. ah waa géej waaye bu leen teg ci moom la ñu teg <laughs> ndax fa la dëgg. kan moo gis kan moo gis jour jour buy dugal di teg ci jour buy rate. mais moom dernier ko dernier ko moom ratewul dafa dugal. non dégg nga wax man laa wax jour buy dugal si sama bopp laa wax man jour buy dugal laa. Hmm. te man dal te man ba ma dalee bëre ba léegi bëri naa quinze combat kenn amateur bu mën a wax fekkee naa góor sax fu ñu ko daanee ñu ko wax. troisième de daan na la ci ci ay kayit. waaw kooku dama koy nangu ci ay recours rëpp na def na nii. mais recours dafa bokk de. non yooyu yëpp ay test la a ne nga yóbbu sa kooku la grand champion la maa ngi koy ñaanal su ma demee bu parce que yàlla rëpp rëpp da ñaan nga yàlla bul rëpp nga taxaw. amateur yi dañoo fay seen xaalis ngeen bëree taw ba ñu rëpp. est-ce da ngay rëpp yow. bii dama koy bàyyi mu song kon naa ko bàyyi ko nekk na mën a rëpp naa ko bàyyi mu song. wóorul ci yow de bàyyi fils de balle mu a yóbbu fenn. <laughs> Ah, gëm na ne yow la songee du la yóbbu fenn. man ñi may contactal ñoo ko ëpp doole dàq koo bëri ay borom xam-xam laay bëreen man sama bopp maa ko ëpp doole maa ko dàq bëri. Balla Gaye de gis naa mu ànd moom di ko entraîné grand champion la maa ko bu frère sœur ba mu ne bu noonu bu noonu bu noonu athlète bi ñuy jaay géejawaay di ah, boo nekkoon joueur kon géejawaay la jënd. bu noonu joueur géejawaay di may jënd maa la ko wax. ah moom géejawaay yëpp parcelle noonu la géejawaay tubaab boo gisee àdduna bëgg na sportif bu buy gagné bëgg sportif boo xam ne te entraînement sérieusement am état am doole loolu mi si yow. mi si man am naa doole am naa muscle graissé wu ma aw ma biir aw may neex. moom tamit ponkal la am na doole gërësewul amul biir loolu de gis naa ko moom suñ posé woon poids bi dinañ ci dinañ ci dindi bu bëri de man maa la wax loolu. ah kon yaram naa ko sax moom mu naan damay bu yóbbu à l'agir mu def mën a mën dafa mën a bëri cinq mille. waaw combat bu yàgg la wax. dafa mën a bëri cinq mille. moom fils de balle de bëri na ko. moom mën bëri nangu naa ko joom nangu dama ko moom mënul bëri cinq mille bu bëri mbër buy bëri. moog Général Malika combat bi mën na cinq minutes. non yow nga war ndomb mbër loolu noppaleeku la. mais mbëri teg ngay teggi teg muy teg teg muy di xeex. loolu dafa métti. ah comme ni ma bëreeg Cobra. ko man noonu wala comme ni ma bëreeg Baami Ndiol. non moom kay doon la fas yéene bëri ndax nee bëggul combat bu gaaw bëggul rëpp arbitre pire rek ñu ne kii daan na bëggul. kooku ay détails la ci moom yooyu yëpp dëgg fa am yi ngeen di wax yii. Hmm, du gën fa àgg. bala ngay wax da koy tal. tal ko di moo gën a wóor. waaw ah, bala nga wax da nga koy tal quoi. te moom nee na duggoon na fi parcelle daan na fi Oniga te tubaab dana nekk jamais 203. moo li may ci mbëri tout rek mbëri dañoo bëgg ay détails mooy tout le temps rek ñoom dañuy bëri benn bëri ci gox. Mhm. daan rek naan combat bi combat Balla Gaye la combat sama papa diw combat sama yaay diw <laughs> combat soo ko jëlee yaay jël say motuwaay. loolu la wax de nga ne combat bi revanche la Modou loo Balla Gaye la bëgg indiwaat te Modou loo ak Balla Gaye am na fu nu jaar. te yow poulain Modou Lo nga moom poulain Balla Gaye la. xam nga ko lu mu lay tout le temps rek. Balla Gaye bëriwul Modou Lo bëriwul maa moom ñooy bëri. waaw dama bëri li ñuy def su ne indi xaalis bi guddi gi kenn du ko yëg. déedéet buñ commencé lekk wax xaalis bi commencé war na combat ne des na deux semaines trois. Hmm. ku ne wax loola ne di wut wàllu. man combat su ma ko jëlee maa ko jël sama édition boobu. wut wàllu dafa jot maa koy waajal sama bopp. ma ci leen rek laay woote. looy woote ñeneen ma jàppale gën ma jàppale. Hmm. jàppale comme mu Ousseynou laay Ousseynou laa kenn du neex rek Cambérène. waaw koo xam ne ne mii waxumoon sax mais dëkk bi lu ñu soxla. Mhm. doole mi ngi si. comme ne ñoom seexu naa jaw sama xarit ñoom jaw bu gàtt ñoom góor ja ñoom ay kon Abdou Ndiaye sama rak aada jokkeel kooku amu fayam. billaay walaay taala kooku du jàmbur ci man ku ma bëgg la ku nangoo sonn ci man di sant nag sama xarit Youssou Ndoye la international capitaine équipe nationale nit ku baax koo xam te ne mii nit ku baax la quoi. mais di sant ñëwal ci wàllu mobilisation ndax nee na nationale jege na ko nee na bi nga dalee bëre ba léegi doo mobiliser loolu la wax mosoo mobiliser loolu da nga koy dëggal yow doo mobiliser. yow ñaata yoon nga ñëw sama na. da ngaa nekk Sénégal nu ëpp la naa sa dañoo combat ak Tyson 2 2 bii. ma jënd nga 2 millions. ah 2 millions 500. 3. 3 millions jënd. ah 3 millions moom ku mu mën a jënd a jënd 5 millions ponkal yaa fi toog di ma xaar. gars yi mën nañ bëgg. dama xaar barke borom Touba. les gens de Cambérène. Cambérène dañ ma bëgg Mboor bëgg ma parcelle bëgg ma. ñetti fu ma génn gars yi may bëggee. loolu ñetti gox la de. man parcelle fii toog naa fi quatre ans yoo xam boppat bu ñu fi teg dama koy jël tee ko sama loxo nii man du ma mbëri ñuy wax man dama jaar ci mbapat jël adresse Senghor jël yi nga xam ne dañoo ñëw rek daan ñaari mbër ñett di wax. moom nee na mbëru simple yéemu ko ndax gis nañ sa ndaalu ma lekk lu ne def na ko ci mbapat baatu la. cinq lamb jël naa ko fa trois ñaari Balla Gaye ko arbitré keneen bi may jël nag bi mi Balla Gaye ngi taxaw di arbitré. boobu ana Fils de Balla. Hmm. waaw ñemee bëre soo bañee soo bañee am gan mu fanaan ci biti bul am ganu gëleem. waaw gëleem de gëleem de bu ñëwee biti fa lay fanaan. bu ko ah, ragalee fa lay fanaan ganu gëleem laa mun maa fanaan ci biir néeg. déedéet ci biti laa mën a fanaan. xajoo ci pantre de. waaw kay na xam loolu def ko si boppam. mi ngi lay seetaan loo koy loo koy mujjee yóbbu mi ngi lay seetaan ndax combat bi ñëw na. trois jours mu koy wax rek moom suñu borom may ko wér. waaw surtout ndax àdduna loo gisee àdduna wér la. géej waaye gën ko jàppale ndax booy bëri nit même boo duyee isaat moom duyul pertement la. Mhm. ci promoteur bi. seet naa combat yu bëri mais gars yi gën ko jàppale. dooleel ko jàppale ko gaa yi jàppale ko ku mel ne Youssou Ndoye. waaw international bi. góor gi soutien. Eh, ndax basketteur bu mag bi. maître Dior Diagne. ndaanaan bi. Papino Assane Bamba Dieng. ñu ngi fi wax ñii ay ndaanaan lan de. Père Ba. Eh, doomu parcelle bi. Mansour doomam. le fils de Père Ba. maître Dior Diagne le kër mag boobu. kenn du moom. maa ngi koy woo si combat bi mu gën si jàpp di wax doomu moom Mbaye di ko wax yàlla na suñu borom gën a defal jàmm ba mu signé ay contrat yu mag a mag a mag. loolu bi di woo As As Seck. international muy football France. waaw sama xarit de nit ku baax la yaayam. kooku sama xarit de seen kër sa jour foofu laay nekk su ma mee ko baax foofu laay waajee ba combat bi jàll. di woo famille Amadou Ba yëpp sama combat bi jàppale ma surtout Seydou Baax yàgg na ma jàppale moom mu gën ma jàppale sama bis bi dama ci soxla lu bari yoo xam nit ñi gën ma jàppale dama dama lu jàppale nit ñi waxuma nag ñu jàppale may ma xaaj wala dara mhm. lépp luñ fi taxaw ci kaar ak bii ak ti set. Mm. gars yi jëndal ma ko rek laa ci combat kon daal daal bëggoo dara doy daal. non fii dara doy fii bu nee suba la boo ñëwee nga ci asoy laay nga xam ne lépp doy na fi. bu nee suba la dinaa fa ñëw incha allah. fii ci guddi gi ci koñ bi fii waaw nga xam ne lépp doy na fi. guddi gi fi laa ñëw fee. fii dérangement bi mën nañu xaar ma fi ay ngi ci parcelle yëpp ñuy carte xaalis ñuy dawal saret borom jagartaay ba mu ceg-ceg yëpp mën nañu xaar. kon gaa yi la xaar. non loolu xam nga ko yaa nga fekk fii midi ci suba jot wala une doon na yëngu de moom fii xam ne gars yi du am fuñ taxaw non gars yi mën nañu xaar te liñ bëgg laa jox incha allah rabbi suñu borom nag mooy dogal yàgg dama may lu baax yàlla na ma ko gën a dolli mbëru parcelle ak képp ku nekk jàmbaar. ku ñëpp di xaar lan moo ko war a ci bis ba. waaw ndam ko mais mu gën a dooleeku. mais dama la ñeme di trop quoi. ñee mooy wax ñeme ci kii rek wax ji day takk. géew la wax amul tooñ maa moo fay des ak ñetti arbitre. waaw Assane laay day taxaw ne. Lamine Golo taxaw ne ne entraîneur mag entraîneur ñoo fay des jox ko ma ci digg géew bi. waaw bi de moom boo ko jeex na. Lamine dama la bëgg a laaj ba xam ba ma dalee bëri da nga mos a gis ma jéggi saako. man ma gisaguma ko de. CNG bi mu dagg mbër musuma dagg man cent franc suma ko dagg quinze combat musuma dagg ci sangu galaaj musuma dagg dagg ci dugg ci géew musuma jéggi saako. quinze combat yi mu bëri yëpp kenn musu la dagg loolu neexul de na may indil fooy wala sama ménager bi may dégg CNG musuma dagg wala nga xam mbër dëgg-dëgg nag mu jël ku ko xam moo ko mën. boobu dafa doon xaalisam day jeex. ci gàllaaj la koy basé wu ak ci ak teqal tooñ ci biir géew bi. mais mm-hmm. boo dëgg-dëgg entraînement sa ba daf yi ngay def ba pare yow da nga naan see arbitre suuf la ba nga ñibbi moo nekk ci man. Mm-hmm. tooñ moom moom dafa am ndax combat bi moom arbitre bu suuf lee moom bëree fa am mais tooñ moom amatul foofu moom.

incha allah rabi maa mën ma ëpp doole maa dàq bëri ma gën a ñeme waxuma ko moom de fu mu dëkk mu mbër moo mën. géej waaye ay yàgg nañ fi te ñooñu ay mbër lañ nag mënuñ ma xam nga dama ne mënu ma. Hmm. kenn ëpp ma ci doole kenn gën ma ci diis kenn dàqu ma bëri kon luñ ma mënee. laaj laajaat naa la. laajaat naa la. bu ñu boon ci entraînement tubaab ñëw fi ñu jënd boole ñu entraînement si géej ñuy daw wala ñu boole ñu saal. Hmm. dañ may jënd man damay damay jàll hmm. damay at. damaa gis benn vidéo mu nekk ci ay diin maanaam wax na xam na la wax sa tur ak sa sa turu yaay yooyu noonu loolu bi nga ko déggee xaw a tiit noonu kontaan tiito barke Serigne Touba kon yàlla na ma daan damaa kontaan xam na sa turu yaay de xam na dama kontaan waaw man détaillé ma ci moom fës da balla yaayam nitu waaye bàyyam nitu dama détaillé ñu ma samay entraîneur yare ba moom mën a mën nekk ci état kooku di ki mu sëfanteel. Aline Diop la laaj ko ban année la ñu war a bëree maa ngi moom. waroon ngeen a bëree ay année mooy temps yi mu nee ci. 2014 2014 boobu gindandi yi. waaw yooyu weexoon na xat. boobu moom mënul am 1 million 500 jox 1 million 500 pour mu bëree ak man. da laa xewoon. mu ne du sama morom. léegi nag nee na moo ko yóbbu. ma bàyyi ko ba Cobra daan ko. waaw ma jël Cobra daan ko. moom Aline Diop bu tay doon bu doon tay doon démb. Hmm. nekk fi di waxal kenn moom dañ ko war a waxal. ah booyam la yor di ko gunge. non xanaa moom di booy. est-ce que bàyyiwul laa moom dafa. da ko mën a ñaan di di ñaan di ñaan lu ji nga ñaanal sa bopp moo ko gën. waaw moo gën a wóor de. moo gën a wóor. Mhm. te moom loolu moo ko dal. léegi nag la mu waroon bëreeg yow dafa am booyam nag ñëw nee moo koy indi ci lépp pour mu daan la. xam dafa am bëri yoo xam te ne bii seen carré dafa am fu ñu ko bëgg a teg te loolu mënul nekk. fu ñu ko bëgg a teg. ci ay wax rek. comme ñan la. comme genre mbër yooyu ànd ak waa waaw genre mbër yooyu. ay communication yi gàtt nañ ay diw tudd yow mboor mboor nga. nee na kay moom làmb man fer dama ferte ni man dama ferte ni man mboor mboor pire la ci nday mhm. ci bàyyi dëkk dëkk tudd daaru Parba Dieng nekk mboor mboor cent pour cent ci nday ak si bàyyi sama mboor mboor yëpp sama mbokk yëpp nekk ay mboor mboor kon man mënu mënu ma wax ci ay deuxièmement sama mbokk li may dunde man. Mhm. lu ëpp ci camion lay jóge waaw moom ko ne da ngaa waroon dawale li may dunde laax man samay dunde lépp ci Ousseynou laa ñoom aada jokkee lay jógee ñoom Abdou Ndiaye ñoom seexu naa yi mm. ñoom Ndiaye bu gàtt ñoom góor a jeex ñoom ay kon ñoom maam seex làmp maa ngi sant ñaari maam seex yi ñaari seerafaal yëpp ñaari may sotti gàllaaj aw ma seen fay su combat wax jege si dootuñu am dootuñu am temps te amalu ak cant la di cant papa di sant papa yàtta waaye moo sotti gars yi te nekk Espagne léegi. Mm-hmm. ko sant bu baax tey si wàllum may woo di waxtaan ak man. ci àdduna ci àdduna. Ahmed bu Gora Sock. waaw Ahmed bu Gora Sock maa ngi koy sant. di sant nag dawal ko sare yi fépp. waaw maa ngi tegu lu ci loxo Medou Niang ak Pape Lé ndax sant gars yi. amoo seen fay. ndax lu bëri réseau bi bàyyiwuma kenn. maa sant waa marché nag dawal ko sare yëpp ak gars yi nekk foofu. da nga defar open presse wala. non non ñàkk. far lay doon ak kañ la. le la. fii ci terrain mag bi terrain industrie fi mënoon ko defe waaw ci bayaal bu mag bi nga xam ne dama ko dama koy dama koy rembetaan wax naa la combat bi mu leen lu ci loo xam ne dama koy def ci fu ndaw yàgg naa ko yàgg naa ko duy mais dama ko bëgg a gën a duy combat dafa lu mu laaj wax ci day bëgg a bu bëree ñaara ko séq hmm. te wax bu bëree bu ci jëf amul du fay wax ji du noppi eh, te il ma jëf kon daal jëfala war bëgg naa ko bëgg naa jëf sax mais dama gën a dolli jëf bi yaa ngi mettil combat bi de da ko mën a bësi góor a koy bay. waaw loolu dégg naa olof di ko wax. te tooñ tooñ tooñ muy rek daa fekk gaynde fekk ko ci àll nga ni ko bëgg bëgg bëgg a daw ba xam du la dàq ba jàpp la. ba tooñee ci àll nga tooñ mën nga tooñ yëpp ci mais gaynde kenn du ko tooñ. te yow gaynde nga. moo gesib ci ndoxo yam bu la jàpp da lay indi. yow gaynde nga yow. pire. li nga sol nii de gay ak gaynde ci nekk. ah li lion yi la. waaw lion suñu gaynde yi le 24 mars la. waaw kañ. dañuy football si ñoom ak Égypte. <laughs> si Amadou Bamba Dieng joueur mag bi waaw wallaay wallaay koo koy ñaanal. waaw ci barke turandoom yàlla suñu borom defal jàmm. waaw doomu Jurbel la de. ak Assane Papino. waaw ak ñoom Boka ñu ñu maa ngi sant leen gërëm waaw samay xarit lañ xam naa léegi nii sax dinañ gisee foofu laa bëgg dem ci kanam. Mhm. waaw ñooñu moom gars kenn mu seen fay. kon rendez-vous le 16 ak le 20. incha allah rabbi kontaan naa si yow. bëgg naa Bamba. xaaral ma ziar Ousseynou Laye. tawfeex noonu la demee Pape Moudou. Gora Sow gi noonu mu war a daje ak fils de Balla dimanche la drapeau bisu ngoone Gora Sock la champion waaye di rek champion boo xamante ni gëj waaye dañ koy yaakaar fii sa Balla victoire yu bëri na ay défaitam néew na di sant Ousseynou Laye bu baax neex a fekk Cameroun appel bi macha allah boo fi ñëwee da ngay kontaan Ousseynou Laye ñëwal moom moo yor lépp Gora Sock mooy agent Gora Sock kii mooy agent bi moom lépp Gora Sock Gora Sock Ousseynou Laye samedi ak dimanche la bis doxul ci diggante bi mais si Ahmadou Bamba Dieng international bu mag bi waaw kooku ndaanaa la ñu koy sant di ko gërëm di ci bëggee Bambo ak anti anti la champion daw na léegi mi ngi France bàyyi na bëre xaar ma ñëw ñëwal ñëwal ñëwal Ousseynou Laye ba lépp jàmm sant sant yàlla bu baax euh, fu ngeen toll wàccaay bi moom bis bi ñëw na moom géew bi aata tooñ la waaw ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi Seydina Limaamu Laay di ñu ngi nuyu mboor mboor yëpp di leen ziar bu baax a baax di nuyu waa Cambérène yëpp di leen ziar bu baax di wax euh, ñu ngi ci wàccaay yi fi mu toll daanaka ñu ku ne xam na ni làmb ji dimanche la le 20. waaw kon fi ne nii yaakaar naa ni li des bëreetul lépp pare na. mobilisation bi. moom nee na waaj nañ leen noyé moo leen gën a jege stade bi. non ñun mosu ñëw bëre combat suñu adversaire yi ñëpp supporter. góor de wax na ko léegi Iba Mar daanaka dañ bu ñuy bëree maanaam mobilisation bi Cambérène génn Mbawar Mbawar yëpp génn waa parcelle génn. Mm. kooku ñooñu xajuñ xajuñ isaat moo tax mënatuñu bëri sax Iba Mar ñun suñu combat yoo xam ne mënuñu bëri Iba visa dañ koy yóbbaale ah. moom bu teelu ñëw dañ fees stade bi. day mobiliser wala ci kaw lañ jëm. day mobiliser de. bu dee mobiliser ñu ñëwee fii da ko fi fekk parce que ñun ñun ñoo gën a pare ci lépp ñun ñoo gën a pare ci maa ko dégg mu naan ay chauffeur camion ngeen dawal ngeen xam te chauffeur camion yi maanaam liñ mën ci dëkk bi ñoom mënuñu ko ci dëkk bi. xaalis bu bari la amee. noonu la demee nag kon te gars yi ragaluñ loolu. Mhm. góor a gars jaral nañ ko. sédiment gis nga gars yi foofu ay dóor kër waar lañ mboor mboor loolu xam dóor waar mhm. waa Cambérène neen danu ma dóor waar lañ xam kon góor a li ko séq ñëpp ay borom jom lañ nekk ay jàmbaar mhm. man sama xaalis demagul ci combat pour te dire mhm. sama xaalis génnagul gars yi lu ñu génne sama xaalis gars génne joxe ku mel ni ay Ada Jokkel ay Seexuna ay Tafaloo Baslaay ñoom dañoo pare pour combat bi Abdou Ndiaye lu ñu soxla balaa ñoom ñu génne seen xaalis joxe sama xaalis man demagul ci kon ñoom góor amul dara lu ma koy moytu loolu fils de Balla ah. lenn mooy mu ñëw arbitre sifflé mu diriger ko duma ko daan ko ñu dem ñibbi parce que loolu rek la séq ak moom moytul zongal la bi de fils de Balla mënul yëngal góor soog fii la bi moytu ko moom moo la gën a xam ni eh. Balla Gaye mi koy entraîné xam na ni fils de Balla mënut a yëngal góor soog góor soog saa gis la war a bëreel ah la moteur bi rek ak ni mu fa demee ni ci taajeen deux bi mu wàcc pour bëree kii hmm. parce que adversaire yi mu war a bëreel nanguñ koo jël parce que lamb ji xam nga gars yi ñoo bëgg lu nooy mooy tonte bi. waaw bari na ci de. waaw léegi nag il fallait mu jël kii yow gis nga combat bi ni mu demee. Mhm. mais nag il faut mu jël ko pour pour pour ko mën a fekk gars yi ci kaw. ramasser fils de Balla yombul de. waaw ah, yow fils de Balla day fils de Balla li góor di entraîné du bon moom yow góor a gis état bi mu nekk gis état fils de Balla rek xam nga ne kuy paree ñëw ci te mbayaar yaa ngi taxaw di xaar Ah. waaw mafia baa ngi taxaw di xaar. kon rendez-vous le 16 ak le 20. le 16 open press le 20 ñu dem jàpp Fils de Balla du ma ko daan ko ñibbi si Cambérène féete ko Mbawar. kontaan naa ci yow kooku mooy Ousseynou Laye agent Gora Sock di sant Mame jaara ma nga Paris doomu nday kante Mame Diarra bu Liss Ndiago Mame jaara bu Laurent Pape Moudou amal jàmm rendez-vous le 16 open press Gora Sock.